assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara muy mbokk yi nekk ci kippaango yu mboor yi ak kippaango ñi safoo Xam Sam Réew te nekk ci Facebook bi fàttewuñu sàmm sunu mbatit cosaanu Sénégal support xam sam réew nekk ci Amérique ak ñi safo xam sam réew TV te nekk ci Facebook bi mbokk yi ñun ko ànde woon ak yéen ci sunu mbedd yi ñu tuddee tubaab yi ñëwoon nañ ba ca ñetteelu pàcc ba troisième épisode tey jii nag ñu bëgg a ñëw ci ñeenteelu épisode bi ngir di sàkku ci kilifa yu yees yi nga xamante ni jot nañu ci réew mi ñu taxaw ba tubaab yi ñu tuddee sunu barab yi ñu jële ko fi te tudde ko doomi réew mi xam ngeen ni ñëwoon naa ak yenn ba ci Henri Malon dañ ko tuddee Ndakaaru tey jii nag benn gouverneur bu fi nekkoon ñu doon ko wax Jory Guébéry tudde nañ ko mbedd ca Kaolach. turam dëgg di Jean Bernard Jory Guéberry mu judd ci atum jouni ak juróom ñett à ak fukk ak 1815 faatu ci atum junni ak juróom ñett à ak juróom ñett fukk ak 1815 la juddu 1887 astafurlah 1887 ci ko fal mu doon gouverneur Sénégal moom moomu maa ngi jéglu euh, li mu njëkk la mu ngi juddu ci atum junni ak juróom-ñett téeméer fukk ak juróom faatu ci atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar 1815 la juddu 1887 la faatu ñu fal ko takkal ko ndomb ak tànk gouverneur du Sénégal ci atum junni ak juróom-ñett fukk ak juróom junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn maanaam 1861 lañ ko takkal ndoom ak tànk mu doon gouverneur ub Sénégal bi mu ñëwee doxalin wi nga xamante ni mooy politique bi Faidherbe bu doon doxal loole moom la wéyal ci Fuuta ci ba jànnaaru Sénégal fàttaliku goo xamante ni bii ñu koy fàttaliku jëf yoo xamante ni ki ko fi jiitu woon doon Faidherbe jëf na ko fi muy lu ëpp juróom fukki dëkk yu lakk moom bi mu ñëwee loolee da ko wéyal torlu woon na ak ay kilifa yi nekk ca Casamance maanaam si yente woon ak ñoom ay dërlante moom mi nga xamante ni bii loolee la doon wéyal ba ñu ko fi Pinet-Laprade wuutu ci fukki fan ak ñett ci weeru mai atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ku bone nii nga xamante ni lakki dëkk yi nga xamante ni Faidherbe dooroon na ko ba lakk fi lu juróom fukki dëkk moom ba mu ñëwee loolee la wéyal kon tudde nañ ko mbedd ca Kaolack ki ñuy wax Jean Jaurès boo demee Ndakaaru moom it tudde nañ ko fa mbedd Jean Jaurès moom nga xam ne mi ngi juddu ci atum junne ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent faatu ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñeent 1859 la juddu faatu 1914 moom mooy ki nga xamante ni bii njàpp nañu ni mooy député bi gënoon a doon ndaw gën a doon gone ca France amoon na tam ab yéekeele kaayam bu mu sosoon ñu tudde ko humanité bokk na ci ñi nga xamante ni bii ñoo karmatoon dogal bi doon taqale église ak nguur gi église ak état Jean Jaurès mbedd mañ ko tuddee am na ci ndakaaru waaye tudde nañ ko itam mbedd ca Ndar ki ñu wax Jean Mermoz te mu judd ci atum junneeg juróom-ñeenti téeméer ak benn 1901 te faatu ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn moom fanweer at ak juróom la dund moom ku siiwoon la ci mbirum faxal naaw avion aérospatiale mooy ki nga xamante ni bi moo def moo njëkk a def jële naaw avion ci ndar gi di Saint-Louis ci Sénégal ba dem fu ñuy wax Natal ci dëkk bu ñuy wax Brésil ci ñaar fukki waxtu ak benn yooyu naawal na ko naaw gi avion bi yu tegal fukki minute vingt vingt une yu tegal fukki minute moom la def diggante ndar ak dëkk bi wax nataal ca Brésil moom kon Champ-Mermoz moomu tudde nañ ko ba Ndakaaru sax dangay ngay dégg wala naan Mermoz la dëkk ab gox ab quartier buñ ko tuddee bo demé nakar ding fa fekk mbedd muñ tuddé Joffre Joseph Geoffrey juddu ci atum junni ak juroom ñet témèr ak juroom fukk ak ñaar faatu ci atum junni ak juroom ñeent témèr ak fanweer ak ben 1852 la juddu faatu ci atum 1831 moom kilifa la woon ab officier général la woon ci guerre bu ñëk bu première guerre mondiale bokk na itam ki taxoon alliés yi lëkkaloo yi am ndam ca xeex ba amoon ca mar muy la bataille de Marne moom mi ngi ndoorteem mi ngi ko defe ci tukki boo xamante ni bi wala expédition coloniale ci fu ñuy wax Tonkin ca Soudan français Mali ak Madagascar soo ñëwee Ndakaaru di nga Jules Ferry Jules Ferry bokkoon na ci gouvernement néggandiku bu ñu taxawaloon bi nga xamante l'empire bu France daanu ministre ay yoon yoon ministre yoroon de ñu wax le Beaux-Arts moom moo defoon dogal bi nga xamante ni ab dogal la bu ñu jëloon ngir dooleel colonisation France bi nga xamante ni ñu ko doon amal ci Afrique gën ko yaatal moom moo daan wax wax ju ñaaw jooju di wax ni warugar warugar la devoir la ci les races ngir ñu jox xayte de races inférieur muy wax ju ñaaw joo xamante ni bi moom la doon doxal ñoom tubaab yi ñoom ñooy race ñooy xeet wi gën a kawe yoon la ci ñoom ngir ñu ñëw ci xeet wi nga xamante ni ñoo gën a suufe muy nit ñi ñuul ñi nekk Afrique ngir jox leen peexte kii nga xam yu ñaaw jooju muy Jules Ferry daram ndax war naa desati ci sunu réew mi ginnaaw bi nu moomee sunu bopp ki ñu wax Lamy itam mi François Lamy boo demee Dakar di nga fa fekk mbedd muñ ko tuddee François Lamy moom bu nga xamante ni mi ngi judd ci atum junneeg juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett faatu ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer 1858 la juddu faatu 1900 moom ab officier la woon France dox na yëngu-yëngu yu bari ci Afrique mission boobu ñu tudde woon Fóoru Lami ci atum mille euh, junne ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñu jóge fa dem Algérie ak fi ñu doon wax lak Tchad kuñ doon wax Lapérine am mbedd muñ ko tuddee Ndakaaru muy François Henri Lapérine judd ci atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk faatu ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk 1860 le Djoudou Fatou 1920 général de division la woon ci atum djuni ak juróom ñet témèr ak un ñen fuk ak wër recrutement ngir un ay soldats ngir France boo demee Ndakaaru it da nga fa fekk Le Dantec ñi nga moom la ñuy tuddee fajukaay bu mag boobu di hôpital Le Dantec Aristide Le Dantec mooy turam mu mooy aw turam mu judd ci atum junneeg juróom-ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar faatu ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent 1877 la juddu Fatou 1964 moom ab médecin militaire la woon fajkatu France la woon médecin militaire français moom mooy ki sos wala doon njëkk doon directeur jiite école de médecine de l'Afrique occidentale française ci Ndakaaru tudd nañ ko mbedd Ndakaaru waaye it hôpital Le Dantec moom lañ ko euh, tudde am na ku ñuy wax itam Léon Armand moom it tudde nañ ko mbedd ca Tëngéej muy Rufisque soo demee Ndakaaru dinga fa fekk mbedd mu ñu tuddee Léon Gontran Damas mu ngi juddu ci atum junneeg juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñaar faatu ci atum junneeg juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett moom ab woy werekaan la woon ab woykat la woon bindkat la woon itam doonoon ku yëngu ci politique am politique France la woon baayam ab Guyanais la yaayam di martiniquaise man nañu wax ni kon nit ku ñuul la woon moom bokk na ci ñi nga xamante ni bii doon nañu yëngu ci li doon wooye mouvement de la négritude ku ci fësoon la ku ci doon yëngu la soo demee Ziguinchor da nga fa fekk mbedd buñ tuddee liet na triche doon liet na commandant cercle bu Casamance jànkoonte na fa ay jafe-jafe yi fippukat moom moo fexe woon France dugg fi ñuy wax Séléki doonoon ab royaume ancien royaume Casamance moom moomu ci benn fan ci weeru décembre atum junneeg juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk juróom-ñett fukk ak juróom-benn le premier décembre mille huit cent quatre ci lañu ko gaañ gaañ bu metti ci ab tànk ci ngànnaay loo xamante ni dañ cee def tooke dañ ko empoisonné biñ ko dugalee ci gaal ngir di ko delloosi fi ñuy wax karaban benn bal mi cartouche bi desoon ci fetalam moom la teg ci bopp bi teq ko rey boppam dafa xaru mbokk yi kon ñeenteelu pàcc bi foofu lañ koy yemale muy yem épisode di leen sant di leen gërëm te di leen ñaax rek ngir ngeen abonné ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ba lu ñu dugal rek ngeen daal di koy jot ñoo ngi leen di sant di leen gërëm euh, dig daje ci juróomeelu pàcc bi waaye daal yéen ñi nuy déglu te jigee nguur gi mën a wax ak ñoom loolu nga xamante ni bii le premier ministre euh, Ousmane Sonko dooroon na ko ca Casamance muy soppi tur yi tey mu jiite gouvernement bi yeggee leen ko nañu taxaw ba daray tubaab bu mu desati ci Sénégal lépp nañ ko tuddee doomu réew mi saa Sénégal yi nga xamante ni bii jëf nañ ci fu ci mel ni le Dantec ak lu mu noon di def ay doomi Sénégal judd nañ fi njàngum paj médecine ba jëf fi jëf yoo xamante ni bii jar nañu dindi Le Dantec ngir yàlla tuddi ko fatkat boo xamante ni doomu Sénégal la maa ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf